sëriñ Modou Faty Khary Mbacké sëriñ Modou Faty Khary Mbacké mi ngi feeñ jamono ci atum 1916 ci dëkk bu sell bii nag di njaareem ginnaaw bu mu feeñee jamono ci atum 1916 moom sëriñ Modou Faty Khary Mbacké di doomu Seex samba Mbacké ak soxna Faty Khary Diop moom sëriñ Modou Faty Khary Mbacké bi mu feeñee jamono ci atum 1916 waajuram wa Seex samba Mbacké magam ja sëriñ Touba Xaadim Rasuul nag la ko yëgal ci njaareem ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul di xamal Seex samba Mbacké di ko wax ne sa doom jooju feeñ jamono su matee amu tur nga tuddi ko ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam di Moustapha ginnaaw bi sëriñ Moodu Faati Xari Mbàkke mate amu tur nag kii di ma Massamba Mbàkke di waajuram ndigalul Xaadim Rasool lool nag la wéyal tuddee ko ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam di Moustapha lool moo tax nag kii di sëriñ Moodu Faati Xari Mbàkke nag bokk nag ci turandooy ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam moom sëriñ Moodu Faati Xari Mbàkke nag di doomu soxna Faati Xari Jóob ak kii di Cheikh Massamba Mbàkke waaye amul kenn nag ku mu Xari Diop ak kii di Cheikh Massamba Mbacke waaye nag am na ñum bokkal kii di soxna Faati Xari Diop te bokkuñu Cheikh Massamba Mbacke ñu man caa ràññee nag rakkam ja soxna Maggan Mbacke bintu soxna Faati Xari Diop bintu maam Cheikh Anta Mbacke ak ku ñuy wax soxna maam Faati Busa Mbacke bintu soxna Faati Xari Diop bintu maam Cheikh Anta Mbacke ak seen jeneen rakk jeneen di soxna Sooda mbake bintu soxna Faati Xari Diop bintu maam Cheikh Anta mbake kon ñett nag la bokkal waajur wu jigéen te bokkuñu waajur wu góor muy soxna Maggan Mbacke bintu maam Cheikh Anta Mbacke ak soxna Faati Xari Diop ak kii di soxna maam Boussa Mbacke bintu soxna Faati Xari Diop bintu maam Cheikh Anta Mbacke ak soxna Sooda Mbacke bintu soxna Faati Xari Diop bintu maam Cheikh Anta ñett ñooñu nag la bokkal waajur wu jigéen te bokkuñu waajur wu góor moom moo Modou Faati Xari Mbacke nag di turandoo ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi bi matee dal alxuraanul karim waajuram Cheikh Massamba Mbacke magam Serigne Touba Xaadim Rasool nag la ko jébbaloon nag ci njaareem Serigne Touba Xaadim Rasool nag moo dalal doomam jooju nag alxuraanul karim ci njaareem ginnaaw bi nag la ko fa tëye ab diir joxaat ko kii di cheikh Massamba Mbacke cheikh Massamba Mbacke nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba nag la ko indi woon jox ko ku ñuy wax sëriñ Yoro Kebe sëriñ Yoro Kebe nag jàngal na kii di sëriñ Modou Faati Xari Mbacke alxuraanul karim ginnaaw bi nag la ko jébbal sëriñ Mor Sey Lampum Njambur ci Njambur ci kër sëriñ Mor Abdou foofu itam nag la sëriñ Modou Faati Xari Mbacke nag nekk nag ba mokkal nag lii di alxuraanul karim ginnaaw sëriñ Mor Sey Lampum Njambur ci kër sëriñ Mor Abdou la ko jébbalaan nag ku ñuy wax sëriñ Alsaan Sey jaar na fa nag ci wàllu njàngu njàngum xam-xam ginnaaw sëriñ Mor Alsaan Sëy nag lañ ko jébbal sëriñ Mbàkke Buso nag ci Gédé sëriñ Mbàkke Buso nag doomam ja nag sëriñ Asan Buso nag la ko jébbaloon nag ngir mu jàngal ko nag wàllu xam-xam ginnaaw sëriñ Asan Buso ci Gédé lañ ko jébbal nag Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke nag ibnu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul mu waat ko nag ci wàllu njàngum xam-xam boole koog itam nag yar ko ginnaaw sëriñ Baara Mbàkke nag sëriñ Moodu Faati Xari nag dafa dellusiwaat nag ci loxoy waajuram Cheikh Masamba Mbàkke Cheikh Masamba Mbàkke nag moo ko tarbiya yar ko ginnaaw nag bu ko Cheikh Masamba moom doomam jooju nag di sëriñ Modou Faty Khary Mbacké da koo jébbal nag magam ja sëriñ Modou May sëriñ Modou May nag la Cheikh Massamba Mbacké jébbaloon rakkam jooju nag di sëriñ Modou Faty Khary ñoom ñaar nag ñu ànd nag di liggéey ngir lu jëmale kër Cheikh Massamba Mbacké nag kanam mu bokkitim nag ci doomi Cheikh Massamba Mbacké yi mag nag moom sëriñ Modou Faty Khary mu topp nag ci ginnaaw magam sëriñ Modou May ñu ànd nag di seen ginnaaw waajur woon nag Cheikh Massamba Mbacké ba tax na itam nag ku taqoo woon nag magam jooju la nag di sëriñ du May mu wéy nag ànd ak magam jooju nag di sëriñ Moodu May ci ginnaaw Cheikh Massamba Mbacke lu mu am yit ko lu mu xam wax ko ñu ànd nag topp nag ci seen ginnaaw waajur wa di Cheikh Massamba Mbacke ba ni fi Cheikh Massamba Mbacke bàyyi ko ci atu 1942 laata Cheikh Massamba Mbacke nag di fi bàyyi ko Serigne Moodu Faati Xari nag tàmbale naa sanc nag lu ñu tudde ay dëkk ndax dëkkam bi mu njëkk a sanc di Bala mi ngi ko sanc nak ci atu 1940 ginnaaw Bala nag sancaat na nag yeneen dëkk nag waaye nak ci dëkk bii nag la nekkoon nag di liggéey toppitim nag ci ginnaaw magam ji ko Cheikh Massamba Mbacke boole nag di Serigne Moodu May lu am am yit ko nag ngir Cheikh Massamba Mbacke ba ni fi Cheikh Massamba Mbacke bàyyi ko nag ci atu 1942 mu jël léppam nag jébbal magam ja nag di sëriñ Modou May di ko xoole Cheikh Massamba Mbacke nekk itam nag ci dëkkam boobu mu sanc nag di bala ci atu 1940 ginnaaw bala nag sancaatoon na beneen dëkk nag bu ñuy wax Kaddu Diop ci atu 1945 sanc na dëkk bu ñuy wax Yaari Guy ci atu 1946 sanc na dëkk bu ñuy wax Jatmi ci atu 1958 ba tey sëñ Modou Faty Khary nag sanc na dëkk bu ñuy wax Daaru Muhin ci atu 1959 1989 daaru moyen bii nag mu ngi ci yoonu xel koom jaaga wi sanc na dëkk bu ñuy wax jogo ci atu 1972 sanc na dëkk bu ñuy wax mbajaaneen ci atu 1974 ak dëkk bi nga xam ne ni waajuram sëriñ Masamba Mbàkke nag moo ko sancoon ci ndigalul ko baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul di daaru Karim ci dëkk yi nag la nekkoon di yar di jàng ak di jàngale comme ni ko yoonu murit nag baaxoo nag di defee ba nim génnee àdduna ci atu 1978 laataa muy génn àdduna nag moom sëriñ Moodu Faati Xari Mbàkke def na takkoo takkoo takku nag ci dundam rawatina nag ci dëkk bii mu nekkoon nag di daarul karim te waajuram wa na cheikh masamba mbàkke sancoon ko ndax soo delloo ci wolofal gii ko sëriñ moodu siise defal mag ñuy wax nag jikkoy sëriñ moodu faati xari ak fi sëriñ moodu faati xari nag jaar ci wàllum njàng ak ni mu fonke woon nag waajuram wa cheikh masamba mbàkke ak nangoo liggéey nag bu sëriñ moodu faati xari mbàkke nangoo woon a liggéey rawatina nag ci dëkk bii nag di daaru karim nag ndax dëkk boobu nag di daaru karim soo delloo ci wolofal gi ko sëriñ moodu siise defal mag ñi waxal ñaari teel yum fa bënnoon ak daaray tarbiya gum taxawaloon nag ci dëkk boobu nag di daaru karim ak daaray alxuraan jum fa taxawaloon tarbiya gu sëriñ moo Moodu Faati Xari nag doon tarbiya ay doomu aadama nag ci dëkk boobu nag di daarul karim wolofal gu yaatu daal la moo Moodu Siise def nag ci kooku muy yaakaar nag di sëriñ du Faati Xari ngir ñu wax nag fu mu jaar ci wàllum njàng ak dëkk boobu nag di daaru karim ak yeneen yitte nag yu sëñ Moodu Faati Xari doon def ak lii di barke nag bu ko suñ boroom nag teel jox nag moom jëmm jooju nag di sëriñ Moodu Faati Xari ñu teewlu wolofal gi ko sëriñ Moodu Siise defal ngir di ñu wax njàngum sëriñ Moodu Faati i xari ci ñum jaar ci wàllum njàng ak teel a am barke nag gu ko suñ borom defal nag moom jëmm jooju di sëriñ Modou Faty Khary ñu teewlu lenn nag ci wolofal gu ko sëriñ Modou Cissé defal am fee ñëwoon laay bëgg a ñëw waxtaane nga xam ne kim sudu du koy ñeetaane 1916 moo dib lelam fa njëriñ te kër sëriñ Touba mbiram a jëriñ sëriñ Touba ku tudde woon rasulullahi kan jib bindiif moo tax mu raw am na ci lool manees na ko du la jaaxaloon bindii fi dañ ko daan wër ku ma sa am la di wër ba gis ko dana ko faj la doon yitteem mu am ko te boobakat juróomi at ci sa ir la amagum fu mu toog ñu naan ko yaay mbër mbir ma siiw sëriñ bi woo ko ba mu ñëw dalal ko muy jàng xelam ma moo ñëw da koo dalal yóbbal ko sëñ moor abdu sëy mu koy xamal yal na ko buur ba yàlla fay ci diir bu ñuul mu fab ko jox sëñ baara doomi sëriñ tuubaa sa tum jaara sëñ baara ko jox sëñ mayoram kër kàbb alxuraan mu fab foofu ngàbb jàngal na koy téere jàngal ko lasraar ba mu giiju lool jommal na naari gànnaar ba ñibbisee la réew mi daal di fàq di walwal yi jëm si ci moom nepp soq mbóot nam jëloon ci sëñ Masamba baayam ak la ko Seex Bamba soloon doy yam mu ñëw ci sëñ baara mu fecc leeti muy walangaan fu mu jaañu fëx di seeti ca yooya at la yee salaat daaru kër yi séddale kër ya kër gu nekk am wor yi lam def mooy taxawal fa jàkk màkka ñuy jaamu yàlla moo si gël njool màkka def na fa ñaari teen yi yëpp bënn ñuy xaw di naan bindif yi noonu ko dan sampoon na fay daaraam di leen liggéeyloo bañ am ngërëm ci yàlla noo ko loo daana fa bay ay camion yooyu gerte joxe ko muy hadiya duñ ko fàtte daana fa bay taqi nduroo góor joxe ko noona ginnaaw wala fal gu am solo googu ko sëriñ Modou Cissé defal nag di ñu wax nag jaar-jaaru sëriñ Modou Faty Khary ci ndawam ak fi mu jaar nag ci wàllum njàng ak dëkk boobu nag na ko fa dëkk boobu nag di daaru karim ñu wax leen sax nag naka la ci sëriñ moodu faati xari mbàkke jotee kii di waajuram ma masamba mbàkke di rakk ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool moo ko sanc nag ci bi sëriñ tubaa xaadim rasool nag di jox mag ñi kenn ku ne ndigal na ngir nga dem sanc dëkk boo xam ni da nga toog nag ànd ak mbooloo ma la yaakaar nga nekk fa nag di jaamu yàlla ndigal loolee seexul xaadim joxoon nag bépp mag nag mu ko yaakaar ci atum 1913 ndigal yooye itam joxoon na ko nag kii di cheikh masamba mbàkke wala cheikh masamba mbàkke daal muccul woon nag ci ndigal yooyu noonu itam nag la cheikh masamba Mbacke defee nag comme mag ñëpp nag dem nag sancub dëkk di daarul karim bi Cheikh Massamba Mbacke nag di sanc nag dëkk boobu nag di daarul karim jàmbaaram ji nag wala jëwriñam ji nag di sëriñ daam bale loo nag la joxoon ndigal nag ngir mu gor suuf soosu sëriñ daam bale loo nag moo gor suuf soosu nag di daarul karim ci ndigalul kamu yaakaar di Cheikh Massamba Mbacke ginnaaw bu ñu goree dëkk ba ba noppi ma Massamba Mbacke nag dafa foboon nag dëkk boobu nag di daarul karim jox ko nag kii di sëriñ daam ngir mu féete fa liggéey bi ko Xaadim Rasul doon ndigalul sancub dëkk ba noppi waaye nag am na jafe toog fa ndax ndigal li nga xam ne nii xaadim rasul mi ngi ko koy def loo su ne te diggante daarul karim ak njaareem sori na te seexul xaadim itam nag da koo dëëlawn tuubaa ngir di ko wax ne lépp loo xam ne nii bind na ko mu féete fa di ko saytu ak di ko maasa kon lool moo waral cheikh masamba mbàkke ginnaaw bu mu amee ndigalul sancub dëkk nag ba noppi ginnaaw bu mu ko sancee ba noppi itam jafe-jafey toog itam am na ko fa ndax xaadim rasul mi ngi koy liggéey loo te noppee gu lool moo taxoon nag mu fab jëwriñam ji di sëriñ dàmbaleloo féetale ko nag dëkk boobu nag di daarul karim ngir ndigalul xaadim rasul la nag mën a wéy ginnaaw bu sëriñ daam bale loo toogee nag ci dëkk boobu nag di daarul karim toogal fa itam kii di ma masamba mbàkke kër gi ñu féetale woon cheikh masamba mbàkke di kër cheikh masamba mbàkke ci daarul karim kër googu itam la ko cheikh masamba mbàkke joxoon kër ga nag moo tolloog fii xalifa sëriñ moodu faati xari nekk di sëriñ cheikh mbàkke moom sëriñ moodu faati xari ci kër googu nag lañ féetale woon ma masamba mbàkke mu nekkoon kër cheikh masamba mbàkke ci kër googu itam la sëriñ daam bale loo nekkoon ngir toogal cheikh masamba mbàkke ci dëkk boobu nag di Karim mu wéy nekk fa nag ci ndigalul Cheikh Massamba Mbacke ba ni Cheikh Massamba Mbacke génnee àdduna ci atum 1942 moo Modou May nekk nag xalifab Cheikh Massamba Mbacke Serigne Dame Bale Lo nag wéy nag yor dëkk ba ndax ndigalul Cheikh Massamba Mbacke kat moo ko joxoon nag lii di dëkk ba mu am bis nag kii di moo du May bindub lettre ci kàllaamay arab jox ko nag kii di sëriñ moo du faati Khary Mbacke di ko wax na soo demee nag ci dëkk boobu nag di Daarul Karim nga jox ko kii di Serigne Dame Bale Lo di ko wax ne da ngaa bëgg nag footoo ngir man lii di suñu boroom lettre boobu sax laataa sëriñ Modou Faty Khary di ko jox sëriñ Dame Balelo jaar na itam ci loxoy Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacké soo delloo ca ba ñetti signature ñoo ca nekk benn ba sëriñ Modou May mi nekkoon moo ko signé di wax ne moom moo jox lettre bi sëriñ Modou Faty Khary Mbacké sëriñ Modou Faty Khary Mbacké itam signé na itam ca lettre ba di wax ne sëriñ Modou May jox na ko lettre ngir mu jox ko sëriñ Dame Balelo Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacké itam signé na itam ca lettre ba di wax ne jot na lettre bu jóge ci sëriñ Modou May mi fi nekkal Cheikh Massamba Mbacke jaar ca rakkam ji sëriñ Modou Faty Khary Mbacke moom mi fi toogal xaadim rasul itam jot na ca lettre ba ngir sëriñ Modou Faty Khary Mbacke dem nag dëkk boobu nag di daarul karim man faa toog jaamu suñu boroom ñetti signature yi nag moo nekk ca lettre ba nga xam ne nii sëriñ Modou May moo ko bindoon ci kàllaamay arab jox ko nag kii di sëriñ Modou Faty Khary Mbacke ngir mu jox ko Cheikh Mamadou Fadal ngir nag mu yit ko ki nga xam ne nii seen waajur wa ma Massamba Mbacke moo ko joxoon dëkk ba ngir mu toogal ko fa sëriñ Daam loo ginnaaw bu sëriñ moo Modou Faty Khary Mbacke nag demee nag ci dëkk boobu nag di daarul karim ba jox lettre ba na sëriñ daam baleloo sëriñ daam baleloo nag doon na xamal na sëriñ Modou Faty Khary Mbacke dëkk bii nag sa waajur wa Cheikh Massamba Mbacke moo ko sañtoon ngir itam man ma toogal ko fi boo ñëwee nag ci dëkk bii nag bëgg nag foo jaamoo suñu boroom du ma man nag lu dul jox la nag sa dëkkub waajur bi moo tax itam kii di sëriñ daam baleloo fo kër googu nga xam ne nii moo nekkoon kër Cheikh Massamba Mbacke jébbal ko sëriñ Modou Faty Khary Mbacke daa di àndu nag ci wetu Saalum gi lu tollu juróom benn fukki mètre amaat fa nag gëneen kër nag ngir nekk fa tax na xari mbàkke ñëwee nag def na fa nag lu takkoo takkoo takku nag ci liggéey moo xam ba nub teen daaray tarbiya daaray alxuraan defaraale fa itim nag mbooloo mu baree baree bari ba tax na nag fuñ tudde daarul karim xel yépp dem ci sëriñ moodu faati xari ndax moo ko yeesal jàmbaari ma samba mbàkke jooju di sëriñ daam baleloo ànd naag sëriñ moodu faati xari ba ci atu 1974 mu génn àdduna ñu denc ko nag ci wetu cheikh masamba mbàkke sëriñ moodu faati xari mbàkke tim ñeenti at ginnaaw bu sëriñ daam baleloo itim la ko fekk si ci wetu cheikh masamba mbàkke lii yëkkatale sëriñ Modou Faty Khary Mbacké ci dëkk boobu nag di daarul karim sëriñ daam bale loo itam ba tey ku ko na itam nag taxawu na njabootu Cheikh Massamba Mbacké lu bare bare bari moo nekkoon itam jëwriñu Cheikh Massamba Mbacké ba ni mu génnee ba tax na itam kii di Cheikh Massamba Mbacké itam foboon na doom sax jox ko ko di ki ñuy wax soxna Roqaya Mbacké mook sëriñ daam bale loo itam am nañu ñu mën cee ràññu ku ñuy wax sëriñ Modou Lo ibnu soxna Roqaya Mbacké ibnu sëriñ daam bale loo ak ku ñuy wax sëriñ El Hadji Fallou Lo ibnu sëriñ daam bale loo ibnu soxna roqaya mbàkke ak ku ñuy wax sëriñ saaliw loo ibnu sëriñ daam bale loo ibnu soxna roqaya mbàkke ak ku ñuy wax sëriñ muhammadan jobbe loo ibnu sëriñ daam bale loo ibnu soxna roqaya mbàkke ak seen jigéen ba nag kuñ doon wax soxna maam isa loo bintu soxna roqaya mbàkke bintu sëriñ daam bale loo soxna maam isa loo mi bintu soxna roqaya mbàkke moom cheikh masamba mbàkke ak sëriñ daam bale loo sëriñ muudu mustapha mbàkke falilu ibnu cheikh mamadul faadal mbàkke lañ ko jébbaloon mu dëkkoo ko kon sëriñ dàmbale loo nag jàmbaari Cheikh Massamba Mbacke la woon sëriñ Modou Faty Khary Mbacke nag wéy nag nekk nag ci dëkk boobu nag di Daaru Karim di yar di jàng ak di jàngale ba ni mu génnee àdduna ci atum 1978 sëriñ Modou Faty Khary nag wéy nag di taxawal ay daara ci dëkk bii nag di jaxaaw itam tam taxawaloon na fa daara ak yeneen ak yeneen i dëkk yu sëriñ Modou Faty Khary amoon ay daara di yar di jàng ak di jàngale mu nekk itam nag ku ubbeeku nag ci ginnaaw magam yi nga xam ne nii nag ñoom lay xoole Cheikh Massamba Mbacke ak Khadim Rasoul moom sëriñ Modou Faty Khary Ansar yi mu nekkoon nag ku amoon ak relation nag ak njabootu xaadim rasul gi kii di cheikh Mamadul Moustapha Mbacke ku jaxasoo woon nag sëriñ Modou Faati Xari la ba tax na sëriñ Modou Faati Xari nag doon na ko xoolee xaadim rasul ak waajuram wa cheikh Massamba Mbacke lii di màggalug daarul karim ci ndigalul cheikh Mamadul Moustapha Mbacke nag la bàyyikoo nag jëm nag ci jàmbaar ji nag di sëriñ Modou Faati Xari màggal googu sax ba nëga ni njabootu sëriñ Modou Faati Xari Mbacke ñu ngi koy dundal ngir di fàttaliku seen waajur nam daa amalee nag màggal googu nag di daarul karim ci ndigalul cheikh Mamadul Moustapha Mbacke ibnu xaadim rasul tax na itim nag kii di sëriñ Modou Faty Khary itim tudde woon na cheikh Mamadou Moustapha Mbacke doom wala tudde na cheikh Mamadou Moustapha Mbacke doom cheikh Mahamadou Fadal Mbacke ibnu sëriñ Touba Khadim Rasoul ko jaxasoo woon ak sëriñ Modou Faty Khary Mbacke la ba tax na itim dëkk bi nag di Daarul Karim ci ndigalul cheikh Mamadou Fadal Mbacke la ci jotee ba tax na itim tudde na doom kii di cheikh Mamadou Fadal Mbacke sëriñ Touba cheikh Abdou Lahad Mbacke ku jaxasoo woon ak sëriñ Modou Faty Khary Mbacke la ba tax na itim nag daana seeti sëriñ Modou Faty Khary Mbacke sëriñ Modou Faty Khary Mbacke itim daana seeti sëriñ Touba cheikh Abdou Lahad Mbacke ba tax na itam kii di sëriñ Modou Faty Khary Mbacké tudde na sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacké doom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké itam bokk na itam ci ñi jàngal sëriñ Modou Faty Khary Mbacké ba tax na itam sëriñ Modou Faty Khary Mbacké itam fayee na ko doom ndax sëriñ Baara bu sëriñ Modou Faty Khary Mbacké mi ngi fi te Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ibnu Khadim Rasoul la ko tudde Cheikh Abdou Samad Mbacké ibnu Khadim Rasoul kii di sëriñ Modou Faty Khary Mbacké itam tudde na ko doom ndax sëriñ Abdou Samad Mbacké Modou Faty Khary mi ngi fi Cheikh Mouhamadoul Basir ibnu sëriñ Touba Khadim sëriñ Modou Faty Khary Mbacké tuddee na ko doom njabootu xaadim rasul gu jigéen gi itam kasaalika ñu ci takkoo takku itam ci di sëriñ Modou Faty Khary Mbacké tuddee na leen doom ndax xaadim rasul la doon xool ci ñoom ak ganeen njabootu xaadim rasul gi moo xam góor ak jigéen ñëpp itam sëriñ Modou Faty Khary Mbacké itam tuddee na leen doom moo xam sëriñ Yaddaali moo xam sëriñ Yaxya ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci njabootu xaadim rasul gi ndax kii di sëriñ Modou Faty Khary Mbacké ku amoon cofeer la ci waajuram woo ba tax na ñaari ku waajuram woo tudde doom sëriñ Modou Faty Khary fayaat na ko kaneen kum ko tuddee ngir nag di jaar ci tànki waajuram wi nga xam ne ni moom la ko waajuram wa ma Massamba Mbacke faye woon di sëriñ Touba Xaadim Rasoul ndax kat bi sëriñ Modou Faty Khary Mbacke feeñee jamono ci atu 1916 sëriñ Touba Xaadim Rasoul moo wax ma Massamba Mbacke mu faye ko ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam te Cheikh Massamba Mbacke itam sëriñ Touba itam la jébbaloon sëriñ Modou Faty Khary loolu itam tax na itam sëriñ Modou Faty Khary fu waajuram wa jaaroon di Xaadim Rasoul itam moom itam jaar na fa moo xam ci bëgg-bëgg ak yéene Cheikh Massamba Mbacke itam kii di sëriñ Modou Faty Khary Mbacke itam tudde na ko doom ndax xalifaam bii ko wuutu di sëriñ Cheikh moom sëriñ Modou Faty Khary Cheikh Massamba Mbacke la ko tudde ganeen njaboot gi mu bokkal kii di Cheikh Massamba Mbacke itam ñu ci baree bari sëriñ Modou Faty Khary Mbacke tudde na leen doom ngir cofeel gu mu amoon ci ñoom ndax seen waajur wa Cheikh Massamba Mbacke nag ñu bennoo dong nag la bëggoon ci ñoom te loolu itam sëriñ Modou Faty Khary Mbacke itam ku ko sàmmoon la te doon ko doxee yeneen mag ñi toppoon Xaadim Rasuul itam ñu jaxasoo woon ñu mën caa ràññee ku ñuy Abdou Wahab Diop di doomu Cheikh Ibrahima Diop almashar yu kii di sëriñ Modou Faty Khary Mbacké itam ku jaxasoo woon ak moom la ba tax na itam tudd na sëriñ Abdou Wahab Diop moomu doom ndax sëriñ Abdou Wahab Mbacké moom sëriñ Modou Faty Khary Mbacké mi ngi fii sëriñ Abdou Wahab Diop itam moom sëriñ Ibrahima Diop almashar yu itam la ko tudde loolu itam tax na lu takkoo takku ci njabootuk sëriñ Modou Faty Khary Mbacké gi jaar nañ ci loxoy sëriñ Abdou Wahab Diop ci wàllu njàngum alxuraanul di njàngum xam-xam sëriñ Modou Faty Khary Mbacké nag wéy nag topp nag ci ginnaaw magam di xoole Cheikh Massamba Mbacke ak ki fi nekkal xaadim rasool itam mu di ko xoole xaadim rasool di yar di jàng ak di jàngale ci dëkk yi nga xam ne nii gor na ko yor fa nag ay daaray tarbiya mbooloo mi ko topp nag ngir xaadim rasool mu nekk nag ku yéemee yéemee moom sëriñ Modou Faty Khary Mbacke ndax bi mu feeñee jamono ci atum 1916 ba am lu tollool juróomi at la tàmbalee def nag ay xar baax ba tax na itam nag ñu baree baree bari bàyyi woon nañ xel doomu Cheikh Massamba Mbacke boobu nag di sëriñ Modou Faty Khary Mbacke mu nekk itam nag mu teel a yéeme ci ak tuut tànkam taxoon na ti musta bëgg benn taalibéb xaadim rasulitam boo am benn jafe-jafe taxoon na nag sëriñ Moodu Faati Xari mu jaral ko nag mu solow dàllam nag ba génn réew mi nag ngir sàkku ji xam-xam dem na itam ci réew mi di Mali ci atum 1948 ngir sàkku ji xam-xam ak réew mi itam di Côte d'Ivoire ak yeneen ak yeneen i réew nag yu sëriñ Moodu Faati Xari Mbàkke demoon nag ngir nag di sàkku ji xam-xam ba tax na itam ku masaa am jaaxle moo xam ci wàllu wérgu yaram ñu indil la sëriñ Moodu Faati Xari ngir itam mu ñaanal la ngir sa jafe-jafe yaram woowu mën a teggeeku ñi nga xam ne nii nag dañoo am nag liñ tudde feebaru xel ba tax na itam ñu takkoo takkoo takkoo takku ci biir réew mi mën nañoo wax ne jaar nañ ci loxoy sëriñ Modou Faty Khary te yoroon feebar bii ñu tuddee nag feebaru xel mu nekk itam nag ku ci yàlla may ba tax na itam ñu baree baree bari ñu jaar nag ci loxoy sëriñ Modou Faty Khary te yoroon feebar boobu ñu tudde feebaru xel itam macha allah mujj nañ nag loola teggeeku nag ci seenu yaram ba tax itam nag ñu dellusiwaat nag ci askan wi di dox ak a wax nag comme nag ni ko ñëpp yi defee ndax barkeb sëriñ du Faty Khary Mbàkke kat bu kañ ko joxoon nag defoon ci xaadim rasuul loola itam tax na nag ñu takkoo takku itam ci njabootam ginnaaw bu mu fi bàyyikoom loola itam ñu ngi koy wéel ba tax na itam jamono ji ñuy wax ak yéen itam ñu yor feebaru xel itam ñu ci baree baree baree bari danañ wax ne njabootu sëriñ Moodu Faati Xari Mbàkke ñoo leen ñaanal ba mu tàggoog ñoom ndax barkeb seen waajur wa di Moodu Faati Xari mu nekk itam ku teel a ubbeeku itam ci àdduna teel na génn réew mi nag ngir sàkku ji xam-xam teel a génn réew moomu nag ngir sàkku ji xam-xam na itam nag mu xam lu baree baree baree a am tax na itam nag lii ñu tudde télévision itam bokk na nag ci kilifa yi ko njëkk indi nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba doon na wax na nag li tax mu indi fi nag lii di télévision day bañ nag li ñu tudde mbakke mbàkke yu ndaw yi bu ëllëgee nag buñ ko doon seetaane ci gëneen kër nag gudul këru mbàkke-mbàkke ne ñoom kooka itam nag mën naa dox ba àddunay dox itam mbakke mbàkke bu ndaw boobu nag mujj nekk mbakke mbakke bu mag te su boobaa taalibe boobu mën nay wax ne xanaa léegi la jamono neex waaye nag démb nag moom mii sëriñ sëriñ lu ci sama kër la daa seetaane télévision ngir bañal lool nag mbàkke-mbàkke yi nag taxoon kii di sëriñ Modou Faty Khary Mbacké lépp loo xam ne nii taalibe amoon na ko te bu ëllëgee man na caa yab nag lenn ci kilifa yi moom itam fexe woon na itam nag ba indi woon ko ci dëkk bi ngir nag daa bañ nag benn taalibe di wax ne léegi nag xanaa la sëriñ diw di sëriñ sëriñ lu waaye sama kër yàgg na faa ñëw nag ngir di seetaan si télévision teele yéeme googu nag mu yéeme woon lii ñu tudde ay xati wala lii ñu tudde ay njanaaw ku ko daa yar la nag ci këram moom sëriñ Modou Faty Khary Mbacké di ci liggéeyal suñu borom loolu ñu tudde njanaaw yooyu kat bokk na itam nag ci mbindeef yi nga xam ne ni suñu borom buur bi tabaaraka wa taala moo ko bind te itam nag nit mën na caa jaamu suñu boroom loolu itam taxoon na itam ci Tuubaa ju njëkk ja bari na ay pigeon yu nekkoon rawatina nag ci këram gi wuuf nag marché Ocass ba tax na itam mën nañu wax ne jamono ji képp koo xam ni am nga fi ay pigeon suñu toppee race ba mën naa delluwaat ci kër Sëriñ Moodu Faati Xari ndax bokk na itam ci ñi fi njëkk yar ay pigeon lool itam tax na itam njabootu Sëriñ Moodu Faati Xari gi néew na lool nga dem ci ci kër kenn te doo fa fekk ay xeti yar la lii di màkkatal mu karama itam sëñ Modou Faty Khary Mbacké demu fa waaye itam ñu takkoo takkoo takku itam ci murid yi wala ci taalibe itam sëriñ Modou Faty Khary Mbacké itam yóbbu na leen màkkatal mu karama ndax man caa liggéeyal suñu boroom mu nekk itam ku yéeme moom sëriñ Modou Faty Khary Mbacké ba tax na itam ñaari su masaa wax nit dara yàgg-yàgg daa ko gis ndax kat boroom xaas la woon boroom xaas googu mu nekkoon tax na itam ñu baree baree bari ci biir réew mi moom sëriñ Modou Faty Khary Mbacké ba nim génnee àdduna ci atum 1978 ci feebar bu ko tëral ci këram gii nag wuuf marché Ocass mu nekk bisub ajjuma ñaar fukki fan ak juróom ci weeru safar ci atum 1398 ci gàddaay gi ajjuma ñaar fukki fan ak juróom ci weeru safar ci atum 1398 ci gàddaay gi dëppoog muy vendredi 3 février 1978 vendredi 3 février 1978 ñu yëgal ko nag ki nekkoon xalifa général des mourides di Serigne Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacké Serigne Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacké moo wax kii di Serigne Touba Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke ngir mu jullee sëriñ Moodu Faate Xari Mbàkke ñu jébbal ko nag ci armeer yu mag yi ci wetu waajuram wa Seex Masamba Mbàkke ginnaaw bu sëriñ Moodu Faate Xari Mbàkke génnee àdduna taalibeem bi ñu tudde sëriñ Moodu Siise soo delloo nag ci marsiya bi mu ko defal mag ñuy wax nag at moomu di atu 1978 naka la yéemee nag ci murid yi ngir ñàkk gu ñu ñàkk ki nga xam ne ni daana taxawu nag jafe-jafe yi murid yi ci bépp feebar bu ñu masaa am ngir mu tàggale leen nag ñàkk googu ñu ko ñàkk nag moom doomu Seex Masamba Mbàkke bi di sëriñ Moodu Faate Xari metti gu mu metti ci murit yi soo delloo ci marché bi nga xam ne ni moom la ko taalibeem ba sëriñ Modou Cissé defal mag ñu cey wax nag lu takkoo takkoo takku ñu teewlu marché bi ko sëriñ Modou Cissé defal ngir di ñu wax nag doomu Cheikh Massamba Mbacke ba di turandoo ngën gi mbindeef sallallahu wa di sëriñ Modou Faty Khary ci ñàkk guñ ko ñàkk nag ci bëccëgu ajjuma ñetti fan ci weeru février ci atu dëppoog mu ñaar fukki fan ak juróom ci weeru bi sëriñ bu mag bi fil jinaani keroog ba sëñ Moodu demee barsàq fit yëpp dem kenn ku ne nga jàq ba dal murid yi yëpp yi xaacu sun waaja dem na Mbàkke mooy ku baaxoon waaye ku jël sëriñ Masamba baayam moo fi bawul sëñ Moodu mi di waayam xam naa keroog àjjana am na gan gu mag gu tedd lool waa jannatul firdawsi ñëpp ñëpp sañse kini si sëñ Moodu unay sargal teral fi jigéenu ay ni yaa yor ga di joxe ay bernde te biir këram ga ginnaaw marsiya boobu ko sëriñ Modou Cissé defal nag bari na itim nag ñu defal ay way nag kii di sëriñ Modou Faty Khary Mbacké ñu man cee ràññee jàmbaari sëriñ Touba Khadim Rasoul ja di Cheikh Moussa Ka waaye nag Cheikh Moussa Ka nag jëg leelul sëriñ Modou Faty Khary mbake nag ay wayi boppam waaye nag ci biir way yim doon way Cheikh Massamba Mbacké ak yeneen way nag yum doon way nag ñii di murid yi bari na nag fu muy tudde sëriñ Modou Faty Khary Mbacké ngir di ci def France ndax jàmbaar la woon kan moom doomu Cheikh Massamba Mbacke bi di Serigne Modou Faty Khary Mbacke moo tax nag soo delloo ci mbindum Cheikh Moussa Ka bari na nag fu muy defee seede ci Serigne Modou Faty Khary Mbacke ngir jikko nag di Serigne Modou Faty Khary Mbacke yoroon ndax kañ ko jébbaloon di xaadim rasuul ak yéeme nag gu Serigne Modou Faty Khary Mbacke yéeme woon ndax kat ci juróomi atam la tàmbalee def nag ay xar baax ba nim fi bàyyi ko ci atu 1978 moo tax soo delloo ci mbindum Cheikh Moussa daa gis fu baree Modou Faty Khary Mbacké ndax doomu Cheikh Massamba Mbacké ji kat kiimaan la woon ay xalifaam nag nii la tëddee moom Serigne Modou Faty Khary Mbacké ci atum 1978 ba nëg ni kam faye waajuram wa di Cheikh Massamba moo ko wuutu nekkub xalifaam ñiy ñaanal doomu Serigne Modou Faty Khary Mbacké bi di turandoo Cheikh Massamba Mbacké bi suñ borom guddal aw fanam te yàggal ko nag ci toogaayu Serigne Modou Faty Khary Mbacké bi suñ borom man na ko am na ko yàlla na ko def ci dara jëy Modou Faty Khary njabootam gim fi bàyyitim yàlla na borom teg loxo te sàmm te aar leen ci dara jëy kañ ko tuddee di ngeen gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam sëriñ Modou Faty Khary Mbacké nag am na bis nag buñ koy fàttaliku wala am na ay bis nag yuñ koy fàttaliku ñu mën nag bis mu génnoon àdduna di ñetti fan ci weeru février ci atu doomam ji di kam faye sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad di sëriñ Abdou Lahad Mbacké moom sëriñ Modou Faty Khary moo koy amal at mu jot ci dëkk ci weer wi nag di weeru olof di ñaar fukki fan ak juróom nag ci weeru safar ci atum 1398 ci gàddaay gi njabootam gépp nag danañ maase nag bu bis bu delsee ñu wàcceel ko alxuraan nag ci këruk boppam di kër gim génnee àdduna ci marché Ocass di kër sëriñ Moodu Faati Xari Mbàkke am na beneen bis itam nag buñ koy fàttaliku ci dëkk bi nag di Daaru Karim di dëkk nag bu waa waajuram goroon te sëriñ Moodu Faati Xari Mbàkke féete fa itam di Daaru Karim di guddig laylatul xadar bis bi nag sëriñ Moodu Faati Xari Mbàkke nag moom moo ko daa màggalal boppam ci atum 2023 mu jëlee woon ko nag ci ki fi nekkal sëriñ Touba Xaadim Rasoul di Cheikh Mouhamadoul Moustapha Mbacké ibnu Xaadim Rasoul bisub kero Cheikh Amadou Moustapha mi ngi koy wax ne bu gën a màgg nag guddik laylatul xadar kon nag jël ko nag di ko màggal bis boobu nag njabootam nag ginnaaw bu fi sëriñ Modou Faty Khary Mbacké bàyyi ko njabootam gépp itam nag ñi ngi maase nag di ko fàttaliku ngir di ci fàttaliku seen bis bi nga xam ne ni nag seen waajur nag daana ko taxawu ci ndigal lu mu amoon nag ci ki fi nekkaloon Xaadim Rasoul di Cheikh Mouhamadoul Moustapha noonee mu ko doon amale nag ci diirug dundam ci 1943 ba 1978 ginnaaw ba mu fi bàyyi ko nag njabootam gépp nag ñi ngi koy maase nag di ko amal ci njiitul nag ki fi nekkal sëriñ Modou Faty Khary di sëriñ Cheikh moom sëriñ Modou Faty Khary Mbacké ñuy ñaanal doomu sëriñ Modou Faty Khary Mbacké bi di turandoo Cheikh Massamba Mbacké bi di sëriñ Cheikh moom sëriñ Modou Faty Khary mbake suñ borom guddal aw fanam te yàggal ko nag ci toogaayu sëriñ Modou Faty xari mbake bi ak mbooleem ñum séqal sëriñ Modou Faty xari mbake moo xam góor ak jigéen suñ borom mën na ko am na ko yàlla na ko def ci dara jëy Moodu Faati Xari ñuy ñaan ci doomu Cheikh Massamba Mbacke ja ak soxna Xari Diop yàlla na ko suñ borom fay te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem njabootam gim fi bàyyitam yàlla na ci suñ borom teg loxo te sàmm te aar leen ci dara jëy kañ ko tuddee di ngeen gim bi ndew sallallahu taala alayhi wa sallam di jafe-jafe réew mi